ñëw si Bello Bello naka nga jàngate problème Dof Ndeye bi parce que euh, suma ma juumul ñaar xamante ngeen ban jàngat nga si am ak yi nga xam ne nii maanaam mi ngi am jamante yeeg port d'arme yi parce que tout simplement dama xam kii ban jàngat nga am ci loolu. waaw ndeysaan Dof Ndeye sama rakk la donc xamante nañ bu yàgg depuis mun naa la wax ma moom nekkoon nañ maanaam ci bërëb boobu mu nekkoon sama rak yaa may dégg. maanaam mun naa la ne max moom ñu ngi xamante PC. Mhm. ñu ngi xamante PC cent mètres yàgg na mu nekkoon suma rakk bu baax saa yeewoo max moom ñooy nekk yaa may dégg am na fu ñu jaar fu bari maanaam mais lépp biir cent mètres la. naka ngeen nekkandi woon foofu noonu balaa ñuy ñëw si ci ci sujet waaw nekkin ba macha allah xam nga fële moom lu fa am weesu lu dul comme yeewu jàpp julli jàng alquran jàng xasida yaa may dégg teg ataaya maanaam lépp rek si jaamu yàlla lañ ko doon teg ak si waxtaan xam nga si lay ñëw suñu kanam boobu yàgg na boobu xam nga mu ngi fay nekk sax di rabantu di def ay affaire quoi yaa may dégg nekkoon jantal booy mais donc depuis benn bout de temps dañu perdre contact bam ci internet bi rek laa koy gis mais xam naa comme moom bu seddee bu dee stand bu dee stand vidéo bi donc moom dina xam quoi mhm. waaw dina xam man la Sodio bu Medina moom Sodio rek la ma doon wax quoi waaw ndax jamono yooyu maa waaw euh, taxawaay bii mu am nii est-ce que est-ce que lu war la. waaw man li ma koy wax mooy moom dafa am chance dafa am chance mais donc si exploit am maanaam daf siy xaw a def faay mooy ko comme tey jii moom lu mu am fexe ba politiciens yi wuyu si ko fexe ba gars yi di ko jox muy dimbali yenn jeune biir quartier yaa ngi may dégg te moom day xeex banditisme kon moom fépp fu jaasee paaka doon génnee rek moom waru fa nekk. yaa ma dégg kon waroon nañ dégg maanaam ñëpp jame nañ mm-hmm. waroon nañ dégg ñëpp jame nañ ba mu def ba mu des moom quoi ndax moom dafa ne day réinsérer day joxe bon exemple dafay dimbali booy Grand Yoff dafay xeex banditisme mais tey soo ko gisee muy muy yor jam noonu naka la lay def parce que soo xoolee discours am aussi day day day jiwoo ak ak ak waaw mais xam nga fii fii Sénégal la fii pays islamique la yaa ngi may dégg fii du pays de jihad yaa may dégg. Mhm. fii pays islamique la te bu ñu waxantee dégg quoi tey jii nii yor sa jaasi nii carrément wax dëgg yàlla génne ko plein public ñeme ko def vidéo tous les sénégalais di la gis donc am na foo ko teg quoi man su ko defoon duma doy quelqu'un d'autre wala ëllëg su ma xëyee def ko kon xanaa kenn du ma jàpp man laay wax parce que Sénégal lañ nekk Sénégal Sénégal ñëpp la. Mhm. yaa may dégg d'après d'après d'après li wax. Euh, doomu Macky Sall moo ko jox xaalis donc bien vrai loolu nice na politique la da ko seet si pour jàppale ko donc moom tamit na jàppale ni mu war a jàppale mais kenn génnee sa jaasi moom devant tous les sénégalais dugg si taxi nii ni nii nii nii nii non laa moom gars yi dañu waroon wax ak moom parce que Sëñ Tuubaa war a wax ak moom parce que Sénégal dépassé nañ foofu. par rapport ak jam yi nga xam ne nii aussi mu ngi koy def parce que gis nañ vidéo bi nga xam ne nii mi ngi circulé booy bi nga xam ne nii da jël jam ko aussi parce que tout simplement dafa doon atte waaw mais mooy mooy li ma la wax départ bi rek ñëpp war nañ yor jam ba mu des moom moom dafa am lu mu incarné dafa am lu mu woote ba yàlla wuyu ba yàlla defal ko si tawféex tey ñu ngi ko siy wuyu si kon moom warul yàq lool moom warul yor paaka warul jamee moom dépassé na loolu moom léegi kilifa la dafa war a xam loolu wane beneen doxin ndax beneen beneen beneen beneen façon de faire mais pas génne jaase dinaa ñangam dinaa nangam dinaa nangam yaa ngi may dégg Dof Nday dépassé na loolu même bu dul dara yow télé ñu ngi lay invité. Mhm. xam nga politiciens ñu ngi lay seet si tu vois xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi toog comme tey jii ku mel ni man man maa ngi ñaan loolu. Mhm. man maa ngi ñaan politiciens yi seet si moom ndax am na ay idées yu ma bëgg ya nga xamante ni mun naa ko ak samay samay morom ay jeunes Médina surtout les anciens militaires yi fi nekk. nga xam ne tey jàppatuñ tey si dara ñoom ñëpp ñu ngi toog nii croiser les yaa may dégg mhm. tey bu ma sañoon tey man ñu indil ma lañ ko indil indil ko ay jakarta indil ko ay affaire moo xool yenn jeunes yi fii xool xam nga yenn gars yi nga xamante ne defuñu dara ñu am si luñ jàpp mais du ma génnee jaasi naan maa ngi koy maa ngi dem di gori ni mais loolu du bon exemple Bello damay damay damay des toujours si doomu Dof Ndeye ah. euh, mhm. parce que gis nañ xadar bi bon déjà xamante ngeen depuis 2001 mhm. est-ce que xadar bu muy wootee fii ci biti. bu muy nekk bu muy nekk PC bi noon la melo non PC amul loolu PC PC garde yi ñooy bandi PC détenu bu bu génn nee la bandi la day sóob man maa wax loolu man faam waaw bandi bu si bandi bu ma tëkku nag na ma si tëkku man maa wax loolu PC amul bandi détenu yi ngay nekk on t'ouvre six heures du matin on t'appelle par ton nom tu réponds par un très grand présent ñu la voilà dugal nga dugg tëddi ngoon tamit noonu cinq heures on t'appelle tu réponds par présent dooga dugg sa néeg boo yëngalee ñu woo toogal nga toog jugal nga jug demal nga dem taxawal nga taxaw peese loolu moo fa am actuellement peese amul bandi même moom bu duggee peese day range man su ma duggee peese damay range damay xam sama bopp du ma tooñ du ma saaga ndey du ma def dara damay xam ne dutuna la appel mu ne présent jox leen li ñu moom dem dugg toog est-ce que yaa may dégg ak sama mborom ak sama mborom sama mborom tout récemment kii mu ngi fa le le rappeur là comment il nit dof waaye mais man je le voyais chaque matin mhm. ah oui waaye waaju waaju ñàkk ci ñaan waaju baax ah barke sëñ Fallou Mbacke oui nangu jaxasox nit ñi suufeel boppam maa ngi koy ñaanal tamit barke sëñ Touba yàlla na ko bi dimbali ñu génnee ko foofu waaw parce que loolu tamit man la sa waay loolu tamit du senegal quoi jàpp rap tëj bi nii xam nga du game quoi te prison bi fees na fees ba nga xamante ni mardi instant oui les gens s'entassent yi ñu ngi bëgg a dee longue pen yee ngi fa di xaar ku leen atte di bugg ku leen atte loolu yëpp amuñu ko ba pare gars di gën di dolli ba pare tout récemment ñi ñu jàpp si affaire nu mu tuddati kii bu mujj laa marche i man manifestation yi prison bi dafa gën a fees booy ba si yenn booy maintenant nga xamante ne sax ay élèves lañ ay étudiants lañ jamaale nañ ba tey jii ñu ngi siy dox tey suba rek maa pis ñu ngi woon foofu parquet pour jéem a xool luñ ciy def parce que ay étudiants yoo jàpp yóbbu leen ñun kañ la ñuy génn ah. ñu noonu euh, quoi ñu nekk si émission bi Bello lan ngay donc li may tàggatoo rek mooy man maa ngi wax ndaw ñëpp ko maa ngi leen di wax ak conscience ak science bu ferm di leen wax ni kaso neexul quoi am na loo xam buñ ko nangu bu ñu kenn nax ñuy def loo xam ne daf ñuy yóbbu jeel suñ ko xamee ak buñ ko xamul mooy comme li professeur wax sànq chacun a ses droits mhm. waaw ku war a marche marchal teg ko ci yoon barke sëñ Tuubaa ku war a ku ku am cri du cœur cri ñu dégg la mais bul yàq bul toj bul taal yëfu jàmbur bul jël tamit yëfu jàmbur mhm. donc ma leen gën a ñaaxaat rek di leen sonj tamit affaire yi amul xiiroo amul ŋaayoo amul xeexoo amul dóoroo fii Sénégal la quoi waaw fii Sénégal la daa am te bu ñu nangu kenn di ko taal amul politicien amul politicienne mhm. waaw ñun nag ñun booy ñooy dégg daaj quoi bu ñu woowee si loo xam ni xam na ne lii day jëmale Sénégal kanam ñu dem ci bu ñu ci woo si loo xam ne lii jëmalewul Sénégal kanam bu ñu dem waaw parce que dañu war a nekk sénégalais quoi pur sang waaw ñun lépp lu yàq Sénégal rek dañu war a bañ du ma sàmb du ma demb ku nekk nag naa ndax ku ko neex mais ku nekk na xam ne muy def demee conscience tranquille nag kuñ ci jàpp yóbbu la rek say mbokk ay sonn sa ndey ak baay waaw ak say waa kër quoi du politicien moo lay jël si de parce que booy ñu ngi fa actuellement di crever booy doon marché kan moo leen dem jëli kenn jëliwu leen ñu ngi foofu noonu barke sëñ Tuubaa te seen i njabootay sonn seen yaay di dox suba ngoon suba ngoon suba ngoon pour lu jënti leen lu ko fi jar nañ dem ak suñu conscience quoi. jaajëf waaw. Papis hmm. lan waaw di nuyu ziar sax mais am na tamit sam benn boy boo xamante ne tamit homme politique la dañ ko jàpp mooy Karim Xurum Xàkk. Mhm. Abdou Karim Gueye. moom doomu Medina la sax moom sama booy la Karim sama booy la parce que boo xoolee premier chaise bu mu njëkkee ñëw kasoo man la fekk chambre 30. man maa ko njëkk a dalal maa ko formé sama boy la même bi ma ñibbee sax bu mu ñibbee sax bàyyi ma fa dafa doon ñëw di ma seet di ma indil ay comme weeru koor sax di ma indil ay ndogu lépp mu nekk booy bu ma takk ma koy conseillé di ñaan la président Macky Sall mu jàppale booy Abdou Karim jàppale bépp détenu politique mu bàyyi leen quoi xam ni àdduna amul solo yàlla bu la tegee njiit da ngay jégale di jélale Karim Xrum Xax xaat koor la Baye Fall la et puis tamit day jàppale détenu yi koo xamante ne tamit day jàppale détenu yi nekk Walfadjri Pape Ndiaye Pape Ndiaye tamit borom baax la moom it sama waay la ñoom ñëpp ne maki Macky Sall jàppale jéggal tam homme politique yi ba pare tam ci marché yi wax dëgg neex yàlla am na ci ñoo xamante ne seen yoon nekku ci gars yi jàppale leen yóbbu leen leen cent mètres am na ci ñoo xamante sax dañ leen viré mandat dépôt Macky del jéggale di jélalee waaw parce que boo xoolee adduna amul solo mais nag jeunes yi nañuy sóoraale bu baax gars yi marché ñu ci jàpp bari na te am ci bëri jàpp nañ leen dugal leen kaso gars yi fàtte nañ leen sa waa kër ngay gis sa yaay sa papa doo gis kenn ñi la digaloon marché bi ñu ngi fële tëdd di lekk seen ginaar man moom sama wax neexul quoi waaw tey boo yu bëri ñu ngi biir 100 mètres tey boo leen bàyyi woon di génn fu ñu dëggatee marché dañuy daw mais nag dëkk bi nit am nga droit marche marche dafa bokk ci dëkk bi nit am nga droit marche war nga mën a am droit tam génn sa mbébét fii nag Sénégal la Macky Sall jàppaleel doomu aadama yi jeunesse bi bu di marche encadré leen encadré leen ñu marche tamit da leen ñu marche marche ça ne veut pas dire la mais marche tamit ça veut dire que tam nit ki am nga droit génn kaas wax li la neex lu la neexul di gërëm tamit waa Médina di gërëm waa Sénégal di gërëm surtout waa banlieue bi di leen gërëm di gërëm waa banlieue bi di gërëm maire Assou Gueye di gërëm Ousmane Kandé di gërëm Seydou Maraga di gërëm tamit booy Samba Posi Samba Pouche itam da ci jàpp des fois daf may woo sax di maanaam Papis association fu mu toll di gërëm Cheikh Ahmed Ba di gërëm tout booy Médina di gërëm sax opposition bi waaw di gërëm tout Sénégal di gërëm ñëpp doomu Sénégal ñun moom ay réel lañu ñun Sénégal moo ñu intéressé Médina moo ñu intéressé dëgg bu jotee dañ koy wax na di jégalu di jégale di jégale di ñaan ñi nekk si kaso bi yàlla na leen yàlla dollu sutura yal na yàlla defal gén jàmm génne leen ci kaso yi nekk si hôpital yi yal na yàlla defal jàmm di gërëm tamit Seydou Maraga Maraga voyage jaayam jëf